mais li ma bëgg a wax mooy ancrage bi da du demee noonu la yan ban liggéey ngeen nekk di def ci temps bu ndaw bi nii pour mën a combler gap yooyu noonu nga xam ne c'est lié peut à la popularité du parti du, du mouvement bi ngeen ok mais Racine est-ce que gënul siiw euh, Ziguinchor googu nga Podor <laughs> parce que quelqu'un ki nga xamante ne euh, ku investir rien que dans Ziguinchor ville deux hôtels yi nga xamante ne ça plus de trente ans qui participent à l'économie Euh, je pense kooku mënoon ne existé wul je pense que vous connaissez l'hôtel Nema Kadior. vous connaissez Joola. c'est ça donc euh, donc c'est pour dire en fait euh, pour man c'est relatif. on a déjà des gens qui qui travaillent là-dessus. et un tout petit partout au Sénégal on a même des conseillers municipaux et des conseillers départementaux. euh, qui sont de Alsa et euh, par rapport à ça également euh, ñu ngi ci ay mécanismes yi nga xamante ni ñu ngi euh, waxtaan ak ay nit du discuter ak ñoom des leaders d'opinion des leaders de masse ñi nga xamante ni même s'ils sont pas forcément sur la liste ils peuvent travailler dans cette troisième voie avec nous. il paraît que Racine day jéem a broku mu ngi liggéey pour pour rejoindre euh, le, le, la mouvance présidentielle rejoindre laa dégg ci ci ci couloir yi rejoindre la mouvance présidentielle il ne compte pas s'opposer il ne compte pas s'opposer hmm. il ne il n'est pas de l'opposition il n'est pas de Pastef je pense que c'est clair au moins sur à ce niveau. il n'est pas de l'opposition oui au moins c'est clair. ok mais mais mais man man man dégg mm-hmm. naa ñu ne mu ngi ci liste ministre yi nga xamante ne ñoom la ñu war a woo n'a jamais été ministre. <laughs> amoon ah, na ko ministre conseil Macky Sall. non il n'a jamais été ministre lan la woon kon ci Macky Sall. Hmm? lan la woon bu nekkee ci Macky Sall. lan la woon ci Macky Sall. waaw ah. newul woon dara ci Macky Sall. il il n'a il n'a il n'a jamais été conseiller Macky Sall.